léegi mm, euh, ibnu abbas boobu tam mu daldi taqdiram mu daldi waxati ne léegi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na xadis boo xam ne daf ne iltamisuha nañ ut laylatul qadri bi nañ ko ut ci euh, fukki fan yu mujj waaye nañ ko ut itam ci fan yu tóol yi fan yi nga xam ne euh, dafa tóol ca mooy yi nga xam ne dafay ñaar fukk ak benn ñaar fukk ak ñett ñaar fukk ak nangam nangam yooyu am nag ñeneen itam ñoo xam ne ñu ne waaye dëgg dëgg itam eh, leelatul xadr bi nekkul ci weeru koor rek waaye dafa nekk ci àddu ci fukki weer yeeg ñaar mun na ñëw janvier février mars avril mais itam ci fukki weer yeeg ñaar yi bu ci nekk weer bu ci nekk mun na caa ñëw am ñu ne déedéet léegi kay moom ci weeru koor rek mel ni ñi ëpp nag ñoo wax ne ci weeru koor rek lay ñëw xam nga bu boobaa bon dina neex mbir te loolu mooy ne bu ñu laajoon ay léegi ne bu ñu laajee nag weeru kii bu ñëwee na boo xamee ne xam mu ngi ci weeru koor boobu ci mbekk ci bés bi lan la fa nekk kañ la fay commencé wala kañ lay jeex bés boobu nga xam ne mooy euh, laylatul xadri bon itam xiila bi anna tabda aw ñu ne weeru koor bi weeru laylatul xadri bon mu ngi commencé min xuróobi shamsi ila tulooxil fajri ñu ne diir bi nga xam ne ci la jant bi so nga xam ne ci la bés commencé bés ci sharia mu ngi commencé ci bu jant bi soyee waaye ci bu jant bi soyee itam foofu la bés jeexee mu mel ni bés boo jëloon tey ne bés bi àjjuma la comme par exemple nga ne tey àjjuma la war nga xam itam àjjuma bi fan la commencé bésu àjjuma bi nga xam ne moom laa nekk bon ci àjjuma moom kañ la commencé ak kañ la fan la em nga xam ne léegi jeexal naa àjjuma ma war a dem samedi loola nag ci bésu sharia nga xam ne ñu bari itam duñ koy toppatoo ba nga xam ne dañ koy jëfandikoo noonu war nañ ko xam bu baax ca parce que ci la ñuy natt suñ ngénte yeeg suñ jaamu yàlla yeeg suñ bés bu nekk rek yaa ngi koy war a natt ci li nga xam ne mooy bés ba suñu mayee jabar sax wala ñuy takk wala ñuy tukki yi demee yooyu nga xam ne am na bés yuñ ko seet yooyu yëpp war nga xam daal bés bi fan la commencé ak fan la em pour loolu nag boo ko nga bëgg ko xam mooy ne bés bu nekk dañ ko xaajale ñaari xaaj bés ci sharia dañ ko xaajale ñaari xaaj guddi ak bëccëg guddi ak bëccëg moom lañ boole mu nekk bés guddik bés gi mooy jiitu bés bi mooy jiitu bëccëgu bés bi guddik bés bi mu ngi commencé bi jant bi soyee moo tax bu jant soyee rek ci bés boobu nga nekk xamal ne yow dugg nga bés bi nga xam ne moo topp ci yow waaye boo demee ba fajar xar nga xam ne guddik bés boobu moom jeex na waaye bëccëgu bés boobu mu nga commencé itam fajar bu xar ba jant bi so bon bés mu ngi commencé ci jant bu so waaye bés itam mu ngay dooree ci jant bu so waaye guddig bi mooy jiitu bëccëg ba door a ñëw bon nag ci loolu nga xam ne guddig leelatul xadri moo tax ñu koy jël bu amee juróom-benni fan ba jant bi so bu ñu amee ñaar fukk ak juróom-benn ba jant bi so bon dugg nañ guddig fukk ak juróom-ñaar dugg nañ ñaar fukk ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar yooyu nga xam ne mooy laylatul xadri mooy commencé ci bu jant bi soyee ci bésu euh, ñaar fukk ak juróom-benn ñaar fukk ak juróom-benn bu jant bi soyee rek léelatul xadri dugg na nga xam ne mooy guddi googu nga xam ne mooy ci dafay dem nag léylaam bi moom dafay dem ba ba ataamat layil fajiri rek bu demee ba fajar xar rek moom la ci suba ga nag mooy bëccëgu bés bi mooy war a continuer noonu ba jant bi sowaat itam bon eh, loolu pour ñu xam ko dinañu indi ay mbir yu baree baree baree bari bari yoo xam ne dinañu xam bu sa jabar amee doom buñ la waxee bisu takka buñ la waxee naa yooyu yëpp di nga ci mën a xam yow kañ ngay war a def loolu kon nag eh, dafa mel ni lëleetul xadri mu ngi commencé bon bu jant bi soyee ci ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci bis biñ ko gën a yaakaar bu ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ya wala ñaar fukki fan ak juróom jant bi soyee nga xam ne boobu dugg na ñaar fukki juróom-ñaar bi dugg si ci guddi googu mooy doon laylatul xadri su fekkee doon na laylatul xadri léegi itam ñaan yi nga xam ne moom lañ ci soppa wala ñaan yi nga xam ne moom lañ ci bugga Euh, mooy jaamu yàlla rek ak ñaan yoo xam ne moom lañ ci nekk waaye am na fa benn borom xam-xam boo xam ne indi na fa ak julli julli googu nga xam ne moom indi na ko ci léegi nit def ko ci bés ci waxtu boobu mooy julli mu ne mën a julli ñee mu ne julli ga li ci gën a tuuti mooy ñeenti ràkka ñeenti raaka yooyu soo ko jullee Euh, ñaari ràkk bu ne am nga nga sëlmal ñaari ràkk bu nekk nga sëlmal ñaari ràkk bu nekk nga sëlmal waaye ràkk bu nekk yaa ngi fay jàng euh, gannaaw faatiya yaa ngi fay jàng saar bi muy inna ansalnaahu ba bem jeex nga teg ñetti xulu wallaahu ahadun léegi nga def ko nga def ko nag ba loo mun bu fekkee ne dem nga sax téeméeri ràkka dem nga ba junniy ràkka loo ci mun rek nga def ko ci guddi gi bon ñu ngi wan ne waxtu wi jeex na takk waaye léegi loolu mooy julli bés bi am na itam beneen julli boo xam ne itam mooy téeméeri xuluwallaaw moom ngay def nga séddaale ko ci raaka yi su la neexee nga def ko ñeenti raaka raaka bu nekk nga jàng fa ñaar fukk ak juróom waaye bu la neexee itam nga def ko ñaari raaka rek raaka bu nekk nga jàng fa juróom fukki xuluwallaaw ahadun loolu itam julli la ci bés gi ak ñaan boo mun nag lu sa xel daj ci bés rek ñaan ya nag na ca gën a bari mooy jéggalul sa boppa jéggal sa bàkkaar yi boppa yi ba yàlla fóot la ci bàkkaar fóot la ba nga seet wecc bon nag bu boobaa loolu mooy gën a am solo ca ñaan ya waaye sa yoo soxla àdduna yëpp nga boole ko ñaan ko bon ñu ngi em ak yéen fii ba beneen yoon li wax ne waxtu yi jeex na tàkk di leen ñaanal yàlla na ko yàlla dellu ci ñun yeneen i at ci lépp luñ ci jaamu yàlla na ko yàlla nangu bi jaay rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا